الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جناب سنت يا سبحانه وتعالى نيان يالا دول الخير ولك موتش تي يونتي صلى الله عليه وسلم ني نيو ليرال ولا كونتيني تيري بيغا خامني مولون دون سرا موي القواعد الاربع مو ديسون نينتيلو ريغل بي موي القاعده الرابعه قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون borom téere bi nee na آه، moo di ne bokkaalekat yi nga xam ne ñoo doon dund ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne aaya yi daan wàcc ci bokkaale ñi ci njëkk dugg mooy ñoom ndax ci jamono jooju ñoom ñoo doon dund waaye du caaginte ne aaya yooyu ñoom rek lay waxal waaye ñoom ñoo ciy njëkk a dugg nee na bokkaalekat yooyu ñoom ñoo ñoo gën a woyof ak bokkaale ci bokkaalekat yiy dund jamono jii eh, bokkaalekat yiy dund jamono jii seen bokkaale moo gën a tar bokkaale ñi jiitu woon loolu nag suñ ko waxee nit dana jug daan ne yéen da ngeen a bëgg wax ne kon jullit ñi maanaam seen bokkaale moo gën a moo gën a tar bokkaalekat yee nga xam ne moom ay yéefar lañ ci boppam nga xam ne ay yéefar lañ. ñi junni ci jamono ji di ay jullit ngeen ne ñoo gën a yées ña jiitu woon ñu ne ko loolu du jubluwaay bi loolu nekkul loolu lañ ci jublu ndax bu ne diwree bokkaale du càggante ne du càggante ne maanaam dañuy wax ne ab yéefar la directement ndax ñi bokkaale ay catégorie lañ yu wuute am na ñoo xam ne mën nañ wax ne ay yéefar lañ ndax xam nañ ko ca xam nañ Euh, xamal li nga xam ne mooy diini ba jàng nañ kooku moom kenn mënu koo layal waaye ñu ëpp ci ñuy bokkaale ci jamono ji ñoom li ñuy def jàppewuñ ko sax bokkaale xamuñ ne sax li ñuy def bokkaale la kon ñoom la ñuy def bokkaale la tudd mën naa nekk bokkaale bu mag sax waaye ñoom ñoom xañ na xamuñu ko kon ñooñu duñ ñëw directement di leen àtte ne ay yéefar lañ directement buñ deewee safara lañ jëm. comme ñu ko ñi ko ñenn ñi di faral di waxee naan yéen da ngeen yéefarloo nit ñi da ngeen di àtte nit ñi ne dañuy dem safara déedéet bu ñuy jug di wax ci tawxiid wala di wax ci bokkaale nekkul buntu àtte la ñuy nekk maanaam nekkul ci buntu di àtte nit ñi kee fal la jëm ak kee day texee kee day texee di kee safara la jëm kee àjjana la jëm loolu ñun du loo xam ne. valable nañu wax ko placé wuñ pour wax loolu ndax loolu mbirum suñ borom subxanahu wa mooy àtte nit ñi mooy xam kenn ku nekk fan la jëm yonent bi sallallahu alayhi wa li muy màgg-màgg suñ borom dana ko in alayka li nga xam ne moo la war mooy mooy jottali message bi mooy jottali diine yàlla ji euh, dellu wax ko ne ko laysa min al amri mbir mi amul loo xam ne am nga ci dara am nga ci wàll ci kuy dugg àjjana ak kuy dugg safara wala wala ko war a tuub ak ko wërta tuub loolu suñ borom subxanahu wa taala moo ko féetewoo kon bu ñuy jug di wax ci bunt ñii dañuy bokkaale ñii dañuy def nangam du caagante ne dañuy jug ngir atte nit ñi ku nekk fan la war a jëm déedéet waaye dañ ciy dugg ngir ci buntub leeralal nit ñi diina yàlla ji ci bunt laay biir ay mbokki jullit ci buntu bëggal sa mbokk julli li nga xamne mo nga bëgg sa bop ak taxawal ci ñoom layug yalla gi suñu borom subhanahu wa taala bu bu euh duñu kenn baña am lay ne lii ak siwul woon ci man wala kenn waxuma won li wala kon buntu boobu lañuy waxe waye du buntu àtteem nit ñi kon bokkaale kon dafa am ci jamono ji dafa am am go xamne am gu wër la te am gim am nag moo gën a tar bokkaale gi nga xam ne mu amoon bu njëkk ndax nee na yu njëkk ña ñoom buñ daan bokkaale ci jamonoy neex-neex la ñuy bokkaale maanaam bu jamonoy yomb ñëwee bu jamonoy jàmm ñëwee bu jamonoy wér ñëwee bu jamonoy am am am su boobaa ñoom ñu jël seeni xërëm di leen jaamu di ko booleeg yàlla waaye nee bu jamonoy tar-tar ñëwee nag ak fitna wala jamonoy ñàkk wala jamono joo xam ne ñëw na ñu nekk ci problème yu mag nee na su boobaa nag seeni xërëm yooyu yëpp lañuy fàtte liñ daan bokkaaleel yàlla yëpp la ñuy fàtte dellu ci yàlla suñ borom subhaanahu wa taala wéetal ko moom kese moo tax suñ borom wax ci alxuraan ne fa ki idaa rakibu fil fulki yëfar yooyu bu ñu yéegee ci gaal gi ba gaal gi commencé yëngu ngelaw li bari lool ba ñu yaakaar ne gaal gi day suux léegi ñu lab nee na ñu commencé woo yàlla di ko sellalal diine ji woo yàlla rek duñu wax yaa hubal wala yaa laat ñu woo uzza ñu woo manaat duñu woo keneen suñu borom subhaanahu wa taala dong la seen xel di dem kon bu jamono jooju ñëwee seen fitra day dellu siwaat ñu xam ne lii kat suñu borom dongu moo ci man dara ñu daal di woo yàlla daal koy sellalal diine ji nee bu leen yàlla musalee ci loolu ba ñu delluwaat ci seen jàmm ba ñu delluwaat ci jéeri ja ba xam ne fi mu toll nii moom dootuñ mën a lab yaakaar nañ ne ñu ngi ci jàmm nee na iza hum yushrikuun ñu commencé waat di bokkaale waat naan ah budul woon ak suñu xërëm yi moom moom kon duñ mucc budul woon ak diw duñ mucc jamono jii nag loolu moom dafa daanaka booy xool ci réew mi li fi am da ngay gis ne. nit ñi problème yuñ gën a dugg rek ak fitna bi lu mu gëna metti metti rek dañuy téwul dañuy jappanu ci seen ci ñooñu ñi nga xamne ñom ñoom bokkale yalla ngay dugg ci bu auto bi di waja def accident wala mu yëngu yëngu bu bu ndaw rek nga gis ku nekk di tuddu sa turu ka nga xamne mom nga yaakar nan diw xetti li diw xetti wala diko wo ci yeneeni façon loolu nag képp kuy weddi amut nag kooku kooku eh, fooyee sam xel kooku la ñuy tuddee almukaabara muy muy nga xam ne dara am na ba noppi nga dëgg ci sa tànk ne nangam amut ndax ku yàgg tukki yàgg jaxasoog nit ñi ci réew mi dina xam ne bokkaale gu mag dafa am ci réew mi bokkaale gu mag dafa am ci réew mi kon ku jug di ko xeex ñu daan ne kii day yéefarloo nit ñi kii day yóbbu safara nit ñi loolu wax la joo xam ne ñi koy wax ñu ci bëree bëri dañoo am intérêt bokkaale googu des ci kaw suuf ndax bokkaale gi dafa am ñoo xam ne dañ ci am intérêt bu baax a baax a baax ngir mu des ndax am na ñoo xam ne bu bokkaale gi jeexee rek maanaam seen nguur day daanu li ñu amoon ci nit ñi fonk gi leen fonk ak respecté gi leen respecte ak alal gi ñuy jël ci nit ñi loolu li ko waral mooy màgg giñ màgg ci bëtu nit ñi ak nit ñi place bi leen teg. ak li ñuy gëmloo nit ñi ci ak man-man ak loo xam ne xam nañ ko ak loo xam ne mën nañ leen ko euh, xettilee yowmal qiyaama wala yu demee noonu loolu moo tax nit ñi toppalee nit ñi gëm leen léegi bu ñu fexee nag ba loolu dindeegu ci nit ñi ba nit ñi màggal yàlla ba nit ñi teg yàlla place bi mu yellool seen xol yëpp wékku ci seen borom subhaanahu wa taala loolu bu xasee ba am ñoom seen nguur googu day daanu seen loolu day daanu kon ñoom amuñ intérêt bokkaale googu deñ kon naka la ñuy def ñoom mooy di jéem a ñaawal deru ñiy woote ci tawxiit ne ñiikat ay nit lañ ñoo xam ne dañoo jàpp ne yéen ñëpp ay yéefar ngeen kon bu leen leen déglu nga xam ne nit ki bu buñ yàggee sol ci moom loolu saa bu déggee kuy wax ci tawxiid rek day daal di fay daal ne ñii mooy gaay yi ñii mooy gaay yi ma doon wax ñi mooy gars yi ma doon wax bu ci kenn ci ñoom xel mi xawee yow mu tijji xelam tuuti ndax ñi def loolu dañuy tëj xelu nit ñi dañuy tëj xelu nit ñi ne bu leen xalaat maanaam lu leen di wax rek loolu loolu la seen xel yi dañ koy tëj ràpp su ko defee diw moo leen di xalaatal diw moo leen di moo leen di gisal diw daal moom lu mu wax noonu la. kenn ci ñom bu ci xawé am sens ba tijji xelam tuuti ba déglu ñi wote ci tawhid daan ah kon nekkati liñ ma doon wax ci ñi dara du ci dëgg ñi katu leer lañuy wax ci tawhid lañuy wax yalla neena yoonte bi neena lañuy wax su ko defé mom day daldi di weddi ñooñu ngir loolu bañ a am nak motax ñuy digtal nit ñi mbir yu mel non naan leen ñi ay wote katu nangam lañ ñi ay wote katu fitna lañ ngir seen nguur googu gën a mën a sax kon mbir mi ay intérêt moo ci laxasu yu bëree bëri maanaam bokkaale ay intérêt de daf cee laxasu ci réew mi loolu nag fa jar xam ko bu baax a baax a baax a baax ñu xam ak fii kenn gënu fi kenn képp koy yaakaar nit la comme yow ca fi nga jaar fa la jaar dafa juddu am baay am ndey maanaam ñu nàmpal ko mu jaar fi xale yi jaar juddu màgg. ñu bu ñu ñu gas ba mu xóot suul kooku nooy yaakaaree ci moom kooku nooy taxawee naan moom la yaakaar àdduna ak àllaaxira wala nooy taxawee naan yowmal xiyaama moo a ram wala moom may nangam loolu ay caaxaan la loolu ay caaxaan la te bu faatoo mm, nga dem ci doomam sa sa dem ci. Euh, Mm. dem ci doomam mu nekk loo xam ne daanaka buumu ñaameel la goo xam ne mm. day topp sa njaboot gi yëpp li nga xam ne nag moo lay goreel yow nit ki mooy nga wékk sa xol ci yàlla subhaanahu wa taala xam ne kenn mënu laa jëriñ ku dul sa borom kenn mënu laa lor ku dul sa borom sa xel day dal moo tax suñu borom ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ci amul dara luñ ko bokk luñ boole ci ngëm googu ci tooñ ci bokkaale amul dara luñ ci boole nee na ñooñu dañuy am sécurité ci àdduna bi bu ñuy wax sécurité dëgg-dëgg ci àdduna bi ñi nga xam ne ñoo ko am mooy ñi mooy ñi am tawxiid amul dara lu ñuy ragal ci kaw suuf amul ku lii ni tëkku ci kaw suuf bañ tiit waaye sa bu amee dara ci bokkaale ku la tëkku nga tiit bu ñu di waxee ne la yow yow xaaral yow maa ngi jug say mbir ko defee ngay tiit di saraxu sëñ bi nga gis nit ñi di di def ay intervention yenn saa yi nga dugg ci oto benn ñaari waay di xuloo nga gis kenn ki ne ko yow dang nga maa xamut bis boo ma xamoon doo ma tooñ mi koy tëkku ci ci loo xam ne da koy woote woon ne xam na ko ci ci ci ab xam-xam léegi su ko defee waa ji day tiit lool day tiit lool bu ko defee borom oto ñu nekk ci ñëpp naan sëñ bi jéggal ko rek mu naan déedéet kii kay kii kay leen ko kooku ko am tawxiid du du faale loolu ndax day xam ne ne bu dee tooñul moom kenn mënu la ko dara ku dul suñ ku dul suñ borom subxanahu wa wa inna al ummata law ijtamaat ala an yadurruka bi cheyin lam yadurruka illa bi cheyin qad katabahu llahu aleyk xeet wi yëpp àdduna bi yëpp jinne yeeg nit ñeeg ñëpp buñ defoon réunion daal di daje ku nekk indi sa xam-xam boo mën a am ñu daal ne tey dañoo bëgg a daje pour lor diw pour sànq ko pour alak ko pour rey ko wala pour defloo ko suñ borom nee na mënuñ ci yow dara lu dul loo xam ne suñ borom moo ko dogaloon ci yow bu njëkk jeex na. koku bok xasse xasee da ngay noppalu kon tawhid kon ci la jamm nek ci la nek ci aduna bi kon ci jamono ji seen bokale dafa reuy lool dafa dafa dafa ag ci dayo bo xamne agul won ci jamono ju njëkk ndax ci jamono ji ngay gis ko xamne day taxaw ne diwee yalla manam jamono ju njëkk jëpp bokale la daan rek waye fim mu toll nit ñi dañoo wessu bokale ba dem di wétal sax di wétal kenen ku dul yalla waxuma la ñuy bokkaale yàlla keneen déedéet waaye dañuy bàyyi yàlla fële jël jaamu gi wéetalal ko diw daan diw mooy yàlla ñu ci war a wax nga xam ne ñoo am pouvoir ñoom la ñuy wax ay kilifa ay kilifa yi diine ñu daal di ne ci noppi ci loolu ndax bu ñu waxee ci loolu day il faut ñu waxaat ci leneen il faut ñu waxaat ci leneen te loola bu yàggee nit ñi seen xel mën mën naa ubbeeku ñu yeewu ba bàyyi leen fa. moo tax dañ cee noppi di wax ci yeneen dangay gis bu ñu génnee lu ci bëree bëri ci yeneen la ñuy wax nañ di nañ nañu nañu baase nañu maase sàkk sarax nañu nañu rafetal diggante yooyu lañuy wax ci mbir yu mel noonu waaye nañu jaamu yàlla kese te wéetal ko nañu bàyyi bàmmeel yi ñuy wër ak bàmmeel yi ñuy barkeelu nañu bàyyi dem ci bàmmeel yi di ñaan keneen ku lu yàlla subhanahu wa taala nañu bàyyi Euh, bu problème amee wala bu bu bu njàqare amee ñuy ñuy tudd ñuy tudd ay turu nit di fi bàyyi turu yàlla su borom subhanahu wa taala yooyu daanaka duñ ci wax ndax yooyu duñ arrangé ngir ñu wax ci kon nit ñi kon ñoo war a yeewu ñoo war a yeewu génn ci mbuumug jaam ci buumug jaam googu ndax képp koo xam ne defoo yàlla sa yàlla subhanahu wa taala nga nekk jaamu yàlla di nga nekk jaamu keneen wa man yaashu an zikri rahmani nuqayid lahu shaytaana fa huwa wala qarin képp koo xam ne dafa dummóoyu li nga xam ne mooy alquraanul karim dummóoyu njàngaleem lislaam suñ borom ne naa la boole ak ab seytaane moo lay moom ngay àndal mooy nag mooy nga nekk ci leneen loo xam ne du yàlla su borom subhaanahu taala loola di la tiital loola di la digal su ko defee ngay def ci yoonu caaxaan alal ju dul jeex ak coono bu dul jeex te boo nekkoon ci yoonu jub ci yoonu dëgg ci yoonu yoonu tawxiid amaana xaaj ba sax doo ko def waaye bàyyi gi ñu fi jaay bi ñu fi bàyyi ak njub moo tax suñ borom nattoo la loolu kon loolu bind bu jar a bàyyi xel la euh, foofu la téere bi yem euh, wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain